Thank you. te bëgg jël jox sa wàccuwaay fekk fi nga xamante ne mooy sa fief muy Fass nga am combat bi nga xamante ni daanaka ñëw na tey la yox say supporters avant ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax. jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Modou Bamba Xaadimu Rasuul jawlax Al Misbah Karafal jawlax maam Thiambo Karafal waaw maa ngi nuyu di leen sant waaw di leen dalal yéen presse bi yëpp di leen jégalu tamit waaw si heure bi di leen jégalu déplacement bi waaw waaw tey jii gis na nga indi mobilisation comme d'habitude mhm. tey nga gis say ko suwër la tey am nga combat moo xam ne combat combat combat bu doy waar nga am parce mhm. que ngay bëreel bëreel tànn la te yàgg na si lamb ji mhm. sa adversaire loo koy yóbbante lan nga koy wax ak lay wax sa supporter waaw maa ngi woo ñëpp di gërëm ñëpp tamit ndaxte ñëpp ma teewal gis nga ah, fii tey lu mel ñooñu gërëm ñëpp waaw ñooñu gërëm ñëpp dinañ am nañ combat xam nañ ne am nañ combat mais combat bi dañoo jaral barke Serigne Sall dañoo jaral trop trop ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam waaw ñaan yàlla ndam les adversaires loo koy wax mi ngi ma adversaire nga ñëw dëggal boppam rek nga ñëw dëggal boppam waxuma ko leneen. moom ku gis xam te ni moom dafa indi pour ñëw pour xeex te gis na ni macha allah yow sa xeex macha allah yaa ngi koy yaa ngi koy wut jamono duggoon may tey bu dee xeex muy indi xeex yaa ngi moom nan lay demee bu dee bëri yéen ñaar nan lay demee. làmb lañu wax làmb ñaar la làmb bëri laa xeex ñun bëri nañ si bor yëpp lu mu indi rek bëri nañ pour jëfaleeg rek moom incha allah incha allah. Ousseyn. moom baal ma wax dëgg dañu may ku ñu. jaajëf Adé ñu ngi lay nuyu ngay bëre koo xam ne moo la judd ci làmb yàgg na dugg Fass woon na fee kii li may daan ko yaakaar naa ne mbapat moom ku ne jokkeel ne mbapat nan nga fas yéene waaje ak combat bi lan nga si naan. waaw ñun ñoo ngi waaj bu ñuy waaj yàgg na léegi. sa waay champion la mais dafa des ak dafa dajeeg ndaanaan. du ma miim champion am mais man ndaanaan la barki Serigne Bamba du ma tëgg sama bopp mais champion laa te le 27 si kàttanu suñu borom dina leer incha allahu rabi. ngay bëreeg champion bu mel ni Jokal bëreeg ñoom Goro Sock bëreeg ñàkk jëriñ bëreeg ndaanaan yu bëri combat bi fan nga ko teg ak combat bi aussi tamit lan la la jaral. luñ liggéey luñ liggéey ay nekk xale. loolu kese la du dara gëm suñu bopp dañoo jàpp ne ñun lu ñuy mbapat si àll bi daan nañ ko raw jokkal si àll bi kon boog jokkal man feesul samay bët gaa yi la nii rek mais fan man feesul samay bët parce que Serigne Saliou Ousseyn mu ne combat bi maanaam fi nga ko teg nekku fi parce que da nga yaakaar ne moom baa bu jeexal la wala nangam te combat bi la gën a fonk ci combat parce que dafa téye woon dafa téye woon làmb loxoom làmb ji dee xaw ma cuuj nen la wax daa téyewoon nen yola ma loxoom nen bi rëcc mu téyewaat ko diisal loxoom nen bi toj nee na téyewaat na ko te xam na fan la koy yóbbu waaw bu waxee loolu day wax lu ko moom lu ko neex rek nara dafa fekk xale bu fere fees dell macha allah gëm suñu bopp liggéey man duma bëre deux minutes te dimanche dina leeraat du ma bëre deux minutes. doo bëre jokkal deux minutes. ma ko. mais Ada loolu nga wax noonu yomb na trop. loolu yomb na daal deux minutes. yaakaar la la bëgg a yaakaar allah. bu dëggalee boppam si kaw mu dëggalee boppam. naata man ak moom dañoo xamante. à part laamu dañoo xamante bu baax. waaw xamante ne bu baax ngeen daje ay mbapat fépp. non xeebu ko naata champion la bëri na fi ay champion yu ma juri si làmb. mais sa waay man damaa gëm sama bopp damaa gëm lu ma liggéey naa ko ma si benn yoon mais damaa gëm ne bu ma ko jàppee day jeex incha allah. mais Ada tey fu mu toll nii say supporter gis nga nu mu toll macha allah te yàgg nga am bis bu nii mais combat bi combat capital la si yow. dëgg la muy jokkeel. te doon ndaanam. lan ngay assuré si say ñu ngi fay ñu bis ba le 27 allah. di ne na ñëpp ñëw si non à la violence. woowu ma kenn si violence. di ne supporter yëpp na ñëw sañ sa ba rafet. toog seetaan ma bu ñu yàq chaise bu ñu def dara na si si non la violence man maa leen wax loolu Ada Fass maa lancé message bi samay supporters ngir yàlla 27 stade ñoo leen non à la violence incha allah ñu fecc fecc li bëre bëre daan ko ñibbi si incha allah mais gis nañu macha allah Fass nga nekk hmm. te ku ni Fass tey fu mu toll nii ndakaaru ngay bëre kenn koy wax si signature ba lu waral nga wax loolu. ndaxte man ñëpp ma jox bopp. samay morom man jeunesse bi laa man ak jeunesse bi ñoo fowandoo ndakaaru feebu aw ma sens interdit fen si ndakaaru barki Serigne Saliou aw ma seen fay lii rek dafa diis man combat bi ñoom laa ko bëreel te balaa ñuy xam ne ñoom ñoom laa ko bëreel la vingt sept jot bu jëree sama liste dama ko fay bàyyi ñi laa koy bëreel barke Serigne Saliou combat bi mën nañ cee xaar xeex bu metti aar lu mu laaj combat bi déggoo ma la sama lépp la lu mu laaj barke Serigne Saliou di ñaan yàlla yàlla mi may ndam yàlla may ma ndam incha allah mais léegi koy que fi mu toll nii vite c'est bien maa ngi woo maa ngi nuyu yéen presse bi ñëpp ngi di bu baax di ne jéego yu ngeen dox si làmb rafet na ñun am ñu seen fay di nuyu Fallou promoteur bi di wax le 27 incha allah rabi na supporter yëpp teel a ñëw stade ñu fees stade bi teel a di woo autorité yëpp ñu jàpp si biir yi dama bëgg a kaar teel a ñëw ñu teel a dem stade si kàttan suñu borom di remercier ñëpp di gërëm sama sëriñ bi tamit waaw di ko gërëm bu baax moom lépp la. mais yàlla baax na le 27. incha allah dugg na Fass am na luy Fass sax ndax bëre na ki nga xam ne ndeysaan mooy Djily Mbaye Fass Djily Mbaye bu Fass te doomu Fass la te nee na xam na luy Fass sax te nee na day dugg Fass dafay génnaat maanaam yow looy wax waaw maa ngi nuyu fukki penc ñaar yëpp yu nekk Ndakaar yëpp maa ngi nuyu fukki ñaar yëpp. maa ngi dégg li nga bu baax sama grand la bëreet sama papa dili sama papa la kul sama grand sama papa la waaw te Dakar saf te dinaa ko wan ne man yaramu xale laa yor si kàttanu suñu borom la 27 daa ko ne yaramu xale laa yor mais wul seen jili saf ñaari yoon Dakar jili jili jili sax euh, dama juum aada <laughs> ñu gis ne nga bàyyi fi say morom dem jëli mag gis la ci yow mais xam nga fan la la mën a yóbbu bu ndaxte làmb ji dañoo jaral fi ñu jigee trop na trop yàlla may ñu ndam ko boog bi ñuy dem dañuy gën a avancé loolu lañuy ñaan suñu borom combat bi fu ñuy yóbbu xam nañ ko bu baax xam nañ ne champion la ndaanaan la mais dañoo gëm suñu bopp mais ñu gis su fees su fees si donc andil sañ-sañ mhm. gëm-gëm di ko wane ne xale laa lan ma wala da nga bëgg la wala non daa am jaar gars yi comprendre mais a ak moom comprendre nañ quoi. moom daa am fu ñu jaar man ak moom man ak moom jaar. moo tax ñaari gaynde bu ñuy bu si barrière dañu xam kuy gaynde moom xam na moom baax a du loolu laa boole champion la dafa daan ay naanaan. waaw loolu kese la. ci côté gis nañ fa ay ñoom Boussita ay ñoom Lora Thiatou Yara. Mhm. Bulldozer Tony Junior boo yoo xamante ne yéen waa Fass bu ngeen yeexee bu ngeen am fu ngeen toogee de. non macha allah lambu jooju lambu jooju bis boobu yombul. bis boobu yombul bis boobu yombul. barke Serigne Saliou ay xale si bëre xale yi am mbooloo. mais dañoo gëm ne ñun lu ñuy ñëw stade lu ñu fay def si kattan suñu borom mbirum mbër du ko def danañ ñaan yàlla incha allah. maa ngi woo ñëpp keroog dafa am problème. génnal génnal tuuti yaa ngi ci biir keroog génnal tuuti waaw. dafa am problème bu amee set. maanaam doomu fas moo leen laaj lii. dañoo bëggoon nga wax say supporter boo daanee saisi bu ñu ko laal parce que CNG da cee jël ay moto ay mot sëkk. waaw naa la dañoo bëggoon nga wax ci kanam supporter ñoo xam ne. boo daanee bu ñu laalee saisi day am problème. lii ci laa ko ci problème yoonu nekk dama bëggoon nga wax mu leer na waaw du woo ñëpp si non à la violence waxoon naa ko man xale laa laamu laa man du ma defaru laam du ma ko yàq te sportif laa damaa ñaan yàlla di bëre dem si kanam barki Serigne Saliou xale bu ndaw laa waaw di ne woo gars si non ala woo ma samay supporters yëpp supporters laamu ji yëpp laay waxal ndax da du man kese stade bi ñoo ko moom ñun ñëpp bu nga ñu ñooy toog ñu am dara barki Serigne Saliou maa ngi woo ñëpp si non à la violence bu kenn ñu defar ko ñu gën ñu koy fobere sax moo gën ñu koy yaaqa ndax moom lañu am loo ko yóbbante nu pare nañ si lépp jogal la 27 pare nañ si lépp barki xale bu dar la déggoo ma rek du ma wax lu bëri nag la 27 ah, sama la 27 la 27 xale yi ndaw la 27 jeunesse bi la ah, di ñaan yàlla bi bi yor comme Tafambeur da ngay indi lu bees tax. tey contre Jokal lan ngay indi lu bees. lu la mën a xaare. lu bees li ñëpp gis nañ ko. Ah. aada ah. dafa saf ñëpp. waaw aada gon limo. barki Serigne Saliou. aada gon limo loolu yàlla la du man. di ko gërëm bu baa borom mbaar bi. barki Serigne te le 27 dama ga dama gars yi di gën a bëgg a. maa la ko wax fii. mais sëñ bi ne Dakar saf ñaari yoon mi ngi taxaw. waaw Dakar saf ñaari yoon. ndaxte aada Fass dafa la nag jëriñ si lambo. dëgg la day day ñaan di wax mu yombalal ñu ko. Ah. ñu xooli keneen. incha allah si kàddu suñu borom. ñooy tàggoo maa ngi gërëm sama sëriñ bu baax di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf ah, borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaraw laxa al misbah karafal waaw jaraw laxa al misbah karafal jaraw laxa al misbah karafal waaw maa ngi di remercier bu baax barke Serigne saalu di gërëm ñëpp lamb yi ñu si jàpp dañoo bëri moo tax leen sant fii dañuy dañ fii fanaan barke Serigne Saliou ñu ma jàppale yëpp gis naa jàppale bi. mooy yoon aw ma seen fay. yàlla na yàlla fayal boppam. jaajëf te le 27 incha allah ñu ma billet uh-huh. jëlal ma kaar yi. maa ngi wax maire yëpp maire yëpp ñu ñaanal ma. ba yëpp ñu ñaanal ma xale yëpp ñu ñaanal ma. barke Serigne Saliou. kontaan naa bu baax. incha allah jaajëf jaajëf kontaan naa